yu war a wàcce. ah kay waxoon na ñu nag yow mi bés moo fi nekkulee xam naa ne compagnie bi di ko mun a doxal. Eh. Ah, ah liggéeyoon na sax sax ma oola ndey lañ mu sa waxtaan. Hmm. te nga ne woon moom ma may la di ko xalaat. looloo tax nag ma oola tey ma yaakaar ne daal ku mel ni yow te xam ma bu baax am ite ci man bu ma la amee ci suma kër dina nekk lu baax ci man looloo tax nag ma bëgg déggee na man fu mu ne nii Mr ah. Dawda yow lay déglu di boole si ñoo ko saa yoo paree rek. Hmm? te rek nga ma lu ma neex gis naa sax boo ma doo ñee sa benn morom te doo ko mos a réccu soo paree rek da ngaa ñëw sama wax. boobu yomb na yàlla boobu yomb na gis sa yaay ak sa papa loolu yomb na yàlla waaw léegi léegi nuur nga ma oyo woon xaaral ma ñëw yi déedéet foofu dem du problème <laughs> sa yaay dégg nga

xam nga yow mii yaay cagay yow mii yaay bàyyi cagay. yow dama def ko dee yow man dama xamul lu may indi ci yow sax. yow lan moo xew. seetal lii bon bi nga yow man dama xamante ni yow mosu yow te yow yow mënoo see du yow laa seeyal dafa mel ni am na lu dugal si yow bon bi nga def caga bi la. ah lii rek yow ku bon nga yow ma dee ko fi ñuy gal si yëpp yow ku bon nga yow. ah dina sa jikko wóor na ma ne dafa am ku jëm su ma ne waaye déglu ma dafa am ku jëm su ma ne taal su ma déglu jeex te am ku jëm su ma ne taal fa ñu ko def ñu waaye ñu ta nekka fabriqué ko ñu ta nekka ñu ma lay ma ko nee naa waxoon nañ ko dañu bëgg a tas suma sëy bi dañu bëgg a tas suma sëy bi mo def li dama am jëm tas sa sëy naka la loolu di nekkee jigéen bay tër ya ko la nga sëy mais sama jëm gi ma juróom ñaar yaa ci biti mais dañu fabriqué la ñu xaw ma ko bi ñu xaw ma ko bi ci xaw ma ko baax na waaye ma la lu lu lu ci te bariwul man man mu ma toog fii dama foogoon ku bëgg a yàq suma sëy waxuma la ko sax ñaan naa la bon ba bëgg a dee lii nañ ko arrangé suma diggante yi arrangé lu ñu arrangé ngir yàlla lu ñu arrangé nañ ko arrangé bon ki nga doon bàyyi ma dama bon ba bëgg a dee man xaramu jur man suma yére yi laay jël ma génn please ñaan ñaan naa dama la ko ñaan sori ma sori ma dafa soona samir soona samir si sa yëpp laa soona soona samir ma ne ngir yàlla soona na dina war rek am na yooyu dem am naa kër bàyyi

bañ ma ne mais su ma ko lëwee de waaye xalaat na demam bi fi yow de. wax na ne wax na ne am na visa bi sax. waaw. mooy dama ko mu daw ñëw ma ñaan na te mu ne sax te ma ñaan a ñaan a ñaan a jóg. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alpha yow. Alpha jërëjëf waay. Alpha naka la maa ngi fi rek. ah toogal alhamdulilah. Alpha. ñoo fa. jàmm rek am na jàmm rek kay. naa nga def. alhamdulilah tabaraka naa ngeen def. alhamdulilah tabaraka waaw au revoir naka. na nga def waay. naka njaboot bi. ndax ñu ma fa defuñ dara. naka madame bi. bu ma fa deful dara jàmm rek alhamdulilah. mun laa toppatoo de. waaw. nekk nii. waaw moom maa toppatoo na. loolu laa dugg la dëgg dëgg moom maa toppatoo. waaw waaw ku ci am madame bu la toppatoo de moom. waaw. ah sant yàlla ba mu bari. ci sa ndigal nag ndax ci yow la ñoo royee. waaw loolu la yàlla dogal. waaw waaw waaw waaw. Hmm. li taxoon ma oo waaw. dafa mel ni ki toog naa xalaat naa. mu ne daal xara ñu mutali ma Ndeye Yacine ma takk ko daal. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alamin Alpha kontaan naa tey ay waay sant yàlla lii am lu ma kontaanee wut. lii lañ doon ñaan ah, ndax loolu moom dafa war a am gannaaw nag dem na ba nga xam ne seet nga benn lii dafa war a am ñu def ko rek dana am. waaw. Um, ndeysaan soxna bu yaagul nii daf ma wax ci xolam. Mhm. boo buggee ba kontaan utal ma yaay ju ma seet ko xale la de waaye waxi mag la wax nii mm-hmm. mbir mi daal ma seet ko seetaatal ko ma lii dara mënu koo faj comme soxna ne loolu rek moo ko mun a kontaan loo ak fu mun a dem loolu moo mun a def xelam daal man a dinaa ko def loolu waaye nag taka bi bëgguma ci benn mbir warugal gi daal nañ ko yóbbu def liñ ci war a def indi mu sëy si waaw waaw loolu laa ci bëgg loolu day alfa itam waaye loolu du mun a nekkee noonu di daaw da waaw xanaa ñu da xumbeel gu ndaw rek wàcce suñu pondi dënam ndég moom noonu la ko bëggee mu bañ a xumba rek ah te nag wax na dëgg itam yow noo ko gisee hmm? bàyyi xel ne hmm. loolu su ngeen ko waxee du mun a nekk a tax yow seetal ne day yaasin xam nga ne yaayam du ko nangu papaam sa xit ne góor la waaye yaayam du ko nangu da dafa leblante moromam ni man mii sa sarakata sa jigéen dama leblante na ko diggante yàlla tey nga war a seet ne ne Yacine xale la dafa rafetlu ko dara amagul benn laa na ah itam gi daa mag takka xale bu ndaw ñu xew ba mu neex tey seet ma nag sax ngay dem ma fayee nag rek dara bu dara dañuy ko xewal ku ma noonu su fekkee dara laa fa mën a xewal fi mu wóoli nekkoon na koo xam ne li ñu jëflante ñun ñaar mm-hmm. te lim ma éene woon nim ma jàppe woon nim ma yaaxee lim ma miinal mënumaa toog benn at rekk ba mu gaañoo léegi may xumbee Oliver Today mënu la am ñaareel ndax yàlla ko yar jox la ko mu jaar ci sa ndigal mosu leen a jàmmaarloo ci benn yoon bi yàlla def li ko soow kon kay yow soo waxee loolu xaw ma kenn waaye man de dinaa la jàppale ci loolu ndax xam naa ci li nga nekk. li ngeen wax foog ma nangu ko ndax muy daaw de mi ak yow Alpha it wax ma teg teg si baat dafa nekk nag mbiri jigéen la rek waaye ëllëg